ndaysaan yàgg maar mu ngi nii jàmm ngeen Siteu xam ngeen Siteu ndaysaan borom lamsaar borom combat borom MMA bi maa ngi nii ak Sunjata e mama aboo ngi noonu ndaysaan Siteu ngi ne le laa ilaaha illallah yéen ngi noonu jom jàmm ngeen Siteu ngoongu ànd ak Abou Niasse Fora yaa ngi seen nag yëg ngooñ. waaw ndeysaan lii mooy lii lépp si te mooy borom. ndeysaan sant allah. yàlla yàlla dem jàmm. amiin waay. Thank <laughs> you. waa kër Siteu ñoom Elas ngi ne taxaw yaa xool gars yi bi am na problème yàgg maar bi kenn ëpp ko problème li yàgg maar eh yàgg déet waay lii doy ngi mbaaw fii mooy grand mbaaw Siteu a ngi noonu ànd na ki nga xam ne tey moo ko jàppale ci bés bi yaakaar naa muy Obama mooy 4 bi ngeen di gis noonu ci suñu ngeen jàkkaarloog moom oto ba ca ginnaaw xam ngeen ne Siteu la yaa ngay seen ñoom Abou Niasse ca kaw ñoom Abdou Seck xam nga ak a Diamaguène yëpp ndeysaan gis nga Fodé ni muy réglé circulation bi wala ay xali gaa yëpp ngoom bi yàgg boobaa ngoom boobaa réglé circulation bi yàgg maar yaa ngi mbaaw résultat yi open press di waajal États-Unis xool stade bi yàgg xoolal Grand Mbao bi mu mel xool tuuti stade bi entrée bi stade bi Grand Mbao bi borom jàmm gën si Grand Mbao voilà ñu ne ñu non programme bi ñu def. Malaysia Malaysia bëgg tur bi nan la man léegi si Abdourahmane dëkk fan maa ngi dëkk États-Unis mais fii laa juddoo Siteu yaa ko dugal si MMA bi Siteu sama problème moom moo ma fekk si MMA bi waaw maa ngi si dugal lan nga xool ci moom ba jël ko dugal ko ci MMA ah danoo bëgg yóbbu Sénégal bu sori yóbbu ko champion du monde waxuma sax local mais champion du monde incha allah da ngeen ma dama ñu leen di siyaar a wax si MMA bi titre bu lamsaara ngi Dembélé xam nga ko moom laa tuddee la puissance sunu làmb Tidiane Faye gi ne bëgg naa waaw ñu ngi lay dolli ziar seen frère mooy def MMA woote tey mbaaw ngeen bokk ba léegi lu ngeen koy ñaaxee. waaw waaw avant tout ñu ngi kontaan si ñëw bi nga ñëw jox suñu waa Jokalante suñu nekk nga fekk ñu fa. fu mu ko mën a xeelee fii ci secteur bi. bu ñu waaye bu ñu woo yëpp ñu da teew daal. Tidiane Faye maa ngi lay bëggee. waaw ah, siyaar nañu waaw siyaar nañu waaw. sa poulain comme ni ma ko waxee xale boo xam ne yéen a ko yar ci làmb tey mu dem ba nekk champion bu mag si làmb mais dem ba génn frontière yi nag di def MMA. ba taxawal lu mel nii tey war a demee seen i jongante loolu lu ngeen ci yëg yéen ñi ko yar ci làmb. waaw rafetlu ko rek rafetlu ko parce que bu nekkee moom moo am opportunité boobu noonu dañ koy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla ndax day di gën a yokk làmb da koy gën a dundal tey jii suñu làmb ji bu yeggee foofu noonu ñu ne si tam mooy def fii nii tey jii nii benn école presse pour dem bëri ci États-Unis loolu day yokk suñu làmb parce que nit bëri da ko mën a maa ñoom sax ñu bëgg a ñëw ci def parce que ñu bayoon tey ñu sañoon tey jii day nekk ñun ak ñoom ah laale ak ñoom bu baax laale waaw gis nga am na solo Dembélé borom xalima gi macha allah ah, naa la Dembélé. mais félicitation suñu lamb yëpp jaarale ko ci yow liggéey bi naa si. merci beaucoup ko faram fàcce vraiment macha allah te ñu koy defee ñaar yoon. parce que ko si moom. yow demee ba lamb tey nag jóge mel ni daa jóge ci beneen niveau ñëw ci beneen niveau. loolu yow mi yàgg nekk si làmb bi ci ciy jàngat ak loo ciy gis. bu ko rafetlu waaw d'abord làmb suñu culture la bu yàgg bu yàgg lañ ko bëgg. ak sa couverture exporté ko. Balboa demoon naa Suisse fekkee combat bi ma gis européen ñu ko jàppee ñu ko fonkee Siteu jël ko yóbbu ko États-Unis lii dafa nekk pour mbër yi nga xamante ni parfois dañuy def saison blanche boo amul combat amul année blanche nga dem am combat wala aux États-Unis wala am Suisse et cetera loolu baax na pour mbër yi nga xamante ni lii mooy seen métier am na solo kontaan si yow jërëjëf jaajëf Dembélé jaajëf baax guy gi lii du benn yoon guy gi man du ma sëgg sa di xool ndax conseil baax yi ma jox te du man kese yooyu ñëpp la ma defal mais lii may wane ne lamb ñëpp bokku la yow guy gi bu ñëwee dafa mel ni Balla Gaye ñëw na dafa mel ni Modou Lo ñëw na dafa mel ni mbër yëpp ñëw nañ mais ku ñëw ren dafa am jot yaa ngi dégg na dama kontaan dama bëgg neuf bi li mu def dama kontaan waaw Tafa Mbër ñëw na gis naa fi Tafa dafa mbër dafa mbër sama champion la yee sama mbër la aja mi ngi baax sabali la sukundi sukundi dina jomal na la e waay dina jomal na la e ne ci la joomal na ko ci la joomal nañu sikundik sikundik ci la joomal nañu ah c'est ça frajal sukuñe frajal sukuñe c'est ça frajal sukuñe c'est ça yaa toj Sénégal ba jéggi frontière yi te maintenant sëñ sa amee maaba war naa ne di fa toj yàlla la def li nga mel nañ la bàyyi ni nga mel loo laal moo gën loo laalul Siteu yaay taalibe Bamba Siteu yaay borom jàmm gën Siteu yaay borom janwaar Siteu Cheikh Ibrahima Fall nga yaakaar Siteu yaay borom Sénégal Siteu bis ni ki tey jox nañ la verte zone rouge ak étoile ba nga yóbbu États-Unis wax leen Siteu yaa toj Sénégal ba jéggi frontière yi te MMA di nga fa toj mel leen ne suku leen fàtte ne si politique si politique si la joomal la waaw